asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu faahu wahabu yaa rasaaqu yaa maliki yaa tawhabi yaa wasukum ala dawkil asil ajilan bil bisi mahmadi nahda fi ma yudi dini lahi arkana ahmed basir joani tuba waxmini waqina dawa وتجب لي اسم مسكن على السماء والأرض والهرب يا مساكين مسكن أجيب سبت من حسن دي محمد والتالي في حال الله اسمها الكلام من أهل مسلم مسلمنا ورحمة الله ورحمة الله salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh ñu ngi siyaare ñëpp waaw ma ba xadim atal bu wér amul sa xadim bi dafa de kam sa bi siyaare ñun ñëpp rek pour ñu waaye di mën déggee siyaare siyaare ci bisu tedd yi ak ñu ngi suba ñi nga xam ne mooy kordu du xijja ni ko waxee moom muy weeru tëdd weeru wàcc weeru yoo xam ne weer woo xam ne dina tëdd na lool ci ci ci alxuraan ñu ko àlla fekkele jigg nañ ko ay ay at yu bari may ñu taw feex yi am ci door yi gën na kawe naa muutu su boobu suñ boobu laaj al arbaina yi al arbainiya nga xam ne yaatu na lool boo demee ca si naar ya am nañ ko am nañ ko ci africain yi am nañ ko asiatique bi fu ne am na ko cosaan di moom mel ne ne du islam bi ñu xam moom ndax jir jir na islam bu yàgg égyptien yi pharaon yi ñoom ñoom ñoo ko ñoo ko fonkoon lool muy seen muy seen bis boo xam ne wala guddi boo xam ne dañ koy dañ koy jagleel dañ koy jagleel ñëw bi wax ne kat wax dañoo wax ne ñoom ruu gi day jël si waat ci ci ñëw bi ca jëmm ji da ngay jël si waat ginnaaw dafay dellusiwaat nag ñu def ay ay cérémonie ay combine yoo xam ne dañuy dañuy mel ne ku bëgg am alaaka am ak jokkaloo connexion ak ak néew ko ak it fàttali ko waat ko fàttali ko waat wéetaay bi nga xam ne wéetal na leen ko nga xamante ne bokk leen ñëpp daje ca bàmmeel bàkk yooyu bu dëkkoon noonu la la la aada jooju ju jógee ca pharaon yi tas ci ci africain yi yëpp rek nga xam ne saabu saabu ñëwee dañ koy baaxal xam nga xam xam nga africain pharaon yi ñoom wala égyptien yi dañoo jàppoon na kaa ak baa baa mooy nafsu kaa mooy ruux baa mooy ruux gi nekk ci jëmm yi kaa mooy bu bu bu bu génnee ci jëmm yi nga xam ne ñoom dañu ñoom buñ kii faatoo buñ koy denc bu dee sax ab buur la maanaam yi nga xam ne ci ci ci sunu maam yi Afrique séeréer yi bu si am di jóg waxee mbaanaar yi mooy pyramide yi ci Égypte mbaanaar yoo xam ne dañuy gas am yer mu réeré bu dee ab buur génn na àdduna solal ko ay yére ci takkal ko ay takkaay teg ko ci siisu buur tegal ko teg fa ganaar ak ndox ak ñoom ñam ne léegi buróom yi dikkaatee ci yaram wi yaram wi mën a jël góor bi mën a jëfandikoo yooyu yooyu yooyu moom ba ca Mali Ghana Égypte yooyu yëpp ay aada la woon ba ci Sénégal ay aada la woon la woon yoo xam ne ma nga jóge ca pharaon ya kon kon moom yooyu moom ay sunu sunu aada yi bopp la aada yi aada yi africain yi la mel na ne ne it aada yoo xam ne not na ci adduna yëpp sax ba Afrique fu ne ma nga wax waaw aada nag léeg-léeg day gën a ëpp doole ndax ah diine ndax aada sax day mujj foofu doon diine foofu ah diine mooy lu loo xam ne waa ji dafa nangu mu aw ci kawam ci ay atem ah diine diine bu dikkee dana jéem a waxtaan ak aada lépp loo xam ne bunut lool lool lool lool lool lool maanaam léegi agressif wut pas-pas yi yooyu diine dana dana may dana nangu aada aada aada aada dox ca loola ndax ginnaaw diine moo gën a si aada mënta xeex aada ndax ndax yow yow doxandéem bi yow gan gi boo bëggee xeex ak dëkk yi kon yow soo soo nekkee ko kon du neex te te te mënoo te mënoo génne waa dëkk bi ci dëkk bi yow dong nga ne fi kon nga da nga fa bëgg a nekkee nag yow yow ak waa dëkk bi waaw da da nga leen di nangul yenn yi nga xam ne gis nga ne du du du agressé sa pas-pas ndax ko ndax ku ne xam na ne it Seydina Adama ba tey te yoon ci moom ñoo ñoo fi dox kon yu baax yi jëf yonent yu bay woon kon jeexee li kon muy fi kon léppi aada mun mënta bon waaye am na ci yu baax waaye am na ci ci nag yoo xamante ne doxalin yeeg ak bakkan ak ak jinne jinne yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi jeexital ci xel nit ñi après bu problème juddoo kànga mu mu diine néew fa koo xam ne mën naa atte mën naa ubbi bunt muy karaama wala yooyu kawtiif ba nit ñi génn ci problème booba boobaa jinne ñëw daal di taxaw jàpp jàpp frontière ba ne leen kat nangam du suñ ko defee nangam ñu ngi def loola loola résultat bañ soxawoon am nga nga di koy jël yooyu nag tracomate yooyu bu dee globalisé wu di dajaloo doon ab lobb bu yàggee loolu dañ ko daal di jàppee ni que ah lii di dara la dara la seetlu fi ñu toll baaw naan ba sunna sallallahu alayhi wa sallam andi woon te teewut nag baaw naan sunu sunu maam yi seen baaw naan nga daa di dox seetlu na njëriñ lool baaw naan googu ci aada saa bu ñu ko defee mu daw nga xam ne dana nga xam ne nit ñi sol yére yi yére yi yére yi mag ñu jëkk ña sol seen i dara takk seen i seen i seen i longlong ak seen i caq ak seen i nangam peme ya ñuural seen i ni seen seen i tuñ ak seen sikkim wan nag koy jëmtuñ waaye daal di génn di wax seen seen seen woy ya mu taw loolu da danaa ko seetlu seetlu xam ne loolu moom du lu am la da da boo seetloo te tey ñu ñu ngi indi aada ju yees jànka kaañu ngir baw naan te te loolu xam si ko ci sunna waaye waaye nag moom mel na mel na nañ njàngum kaañu taxut ga taxut mu taw moom waaw nga xam ne ñu ñu taxorom rek te te baw naan sunna bi ñu yemoon ci rek nit yi diine yi te dañoo yemoon ci bu baw naan sunna ga génn ci génn ci pénc yi defee ko na ko sunna ci ci waxee waaye gis nga ko dool bu buñ doxee tëdd boo yeexee baw naan sunna far moom day dal di par donte ne résultat ba bañ soxla woon ci baw naan jàngam alxaan yi gisatu ko yaakaar naa kon kon yow ñetti fan yooyu yooyu yëpp noonu la ci aada yi mag ñi dañoo xam ne ay bis aada yi wolof yi aada yi africain yi bokk ñoo waxoon ne su Sénégal gi ay bis gi nan gi roo gi gi day ñëw ci kër gi day ñëw ci kër gi di xool ba xam njaboot gi nu ñu leen taxawoo gannaawam moo tax ñoo xam naan ay bis boobu sax gone yi bu ñu leen jooyloo bu ñu leen nangam yooyu yëpp nag dañ ko daa wax nga xamante ne ay bis ji moom loolu la ñetti ñetti fan yi nag moom aada doon dox ba ci yàgg kon ay bis yu bari ci ñoom ñu sopp ko ñetti fan yi loolu yaakaar naa ñetti fan yi moom yëgut yaakaar naa boo ko doon dalee quatre vingt rek yaakaar naa ñetti fan yi ci ci war tàmbali xam naa wala lu lu lu ko gis tuuti waaw kon ñu fukki fan fan yi moom yàgg na lool moom ci franc yi ba tey ngir bi loolu la nag lu ca mën di am bu wutut ak diine bu dee dañ ciy jëf dara wutut wutut ak diine rek ba tey mas na ko bàyyi aada ja ndax fàttaliku dee la fàttaliku ne ne it relation am na diggante adduna ak alaxara ñu ñu koy def kon ñoom gëm nañu alaxara kon yooyu kon ba tey kon dara ñëwu ci kon asalaamaaleykum wa rahmatulah. فقطعه وهب يا رزاق يا ملكي لك التوفيق واصبر بنا تغيب اسمع عجلا بالبشير محمد بن حتى قوم الدين حقنا يسند عن وجوها وحمن يقنا بالراحة وقت بسمك كسرنا والآل والحب يا مشاهد جميل حسبنا أجيب سبيل الحسن بن محمد الكاف مرأة سبحانه وصلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi siyaare ñëpp waa alam ba xadim waa tarbi wax ya waa waa almar sa xadim waaw xam naa moodu am na ko laaj ci am njaal ma sub ko ci njaalum aaday mag ñu baax ni laaj bi nee na mooy léegi day gis loolu ñu day jaare di sànni bu suba yooyu jaare di jaare di sànni ci suuf xam naa sax ab layu de lañ tax def loolu nag muy lan aada la ju tëdd yoo xam ne bu ñu mësaa ka ñu ñu yuux jib di gox góor ña mag ña dal di jóg ñu góor ña seeti ba xam lu doon demee ñu ñu nekk diw de moo na wàcc moo na puru moo moo na puru boobu sax boobu sax daanañ daanañ tudde tudde ci walla ji ana diw ñu ne moo tax suufa neex xabay loolu loolu mooy dafa faatu daanañ wax ne it diw dafa dafa guddee àll jublu ca dafa dafa faatu waaw yooya da daarañ ko wax buñ ne buñ ne buñ ne diwdee dafa mel ne génn àdduna wala yu mel noonu mag ña def ko ji jigéen ña daal daal di dellu ci kër yow wax jigéen ñi jigéen ña daal di ñëw andi seeni dox andi seeni kuur andi dugub dal ci nakk-nakk gi ñuy wax tey nakk gi booba aw ñam la woon aw ñam wu ñuy lekk ngir jublu ca rek lekk ba mën ba ni ñuy togge ci ceeb yi ci dëj yi booba nakk gi booba moo doon ñam wax buñ defee loola ku amu ko laltu laltu yooyu ñu daa ràbb wala yooyu ñu ci daa ko ràbb ci ci xëddin ñu daal di indi buñ defee loola daal di teg ab layu góor ñu digee sànni dara ay ay dërëm nga xam ne ndax ndax ndax rek dañu jàpp ne ay bis googee waa kër ga duñu tala toppatoo seen bopp ngir tiis wa loolu loolee ñu ñu ñu sànni boo seetloo duñ jox kenn dara ku dikk ci lay bi bi bi ngay sànni ndax yow jaaroo diw ki ngay jaale mooy ki fi jógee moom nga bëgg luñ mën a dajalaatu ba ba ba man cee yor seen bopp diirum ay bis goo xamante ne naqarwaat dana giif ñu ñu mën a toppatawaat seen mbir àdduna moo tax layu lañ rek ku ñu sànni daanaka kenn du ko joxlante ndax dañuy bañ buñ ko joxalee te kenn mu mel ne koo fa moo ko moom muy lu am am solo nga xamante ne ne li muy junj leer na ki fi jógee lañ koy jox ki fi ki fi jógee te ki fi jógee moom mën a joxalante moom ak loxo kon kon ñu ñu teg ko ci lay bi wala bu boo seen moom mu koy jaale da nga koy teg ci suuf wan ne ko kan yow moomu ko ki ki nga xam ne moo dugg tey ci ci biir suuf tey kooka moom lay jaale moom moom lay jox loola. muy kon loo xam ne kon gone gi ko xamut da yaakaar ne bi daala te fekk na loolu loolu loolu aada aada ju tedd la bu ñu xamee jubloo luwaay yi li ñuy tuddee fiqhul maqasid danañ xam ne loolu islam nangu na ko kon jaale ngoo muy lu amoon maanaam foofa nag buñ demee ba dëj ba jeex toq yaag kuur ya ak bata ngi laltu ya ko ñi ko fa indi woon ñoo koy yóbbuwaat ndax ndax waa kër gi na ci ëpp ci tiis ñoom abbi wuñu woon soq abbi wuñu woon kuur abbi wuñu woon basang kon ñoom xamuñu ko ba basang yi xamuñu ko doq xamuñu ko comme doq yi ak kuur yi kon seen borom yi ñu ñoo koy jël da nga dégg sax ñaan dañuy tere delloo yooya lu ko waral boo ko delloo mën nga koy jaawale ndax ndax yow xamu kan moo moo ko fa indi woon kon ñoom ñi ñoo ko fa indi woon te kenn laajal leen ko woon kenn woo leen woon ñooñu it ñooy di kaa xoolaat seen seen basang xoolaat seen i kuur seen dox ak yu demee noonu kon loolu mooy aada yi mag nañ ci njaal mosam bi moom